Euh, Mary Diagne Mary Diagne Amina may ma cheveux may nañ la benn greffage Omar nga ñëw fii nga jël si ko bu leen fàtte ni euh, maquillage bu yanj bi nekk Amélia la ba institut Amel Beauté dama stress may nuyu sama càmmiñu policier yëpp jàppale li ma ne sama càmmiñ yëpp maa ngi leen nuyu surtout Kébé Kébé maa ngi lay woo il faut ngeen jàppale ma de policier yi si réew mi il faut ngeen jàppale ma na ma am saa ci kanam tuuti li ma stressé yéen ñëpp di ngeen ko xama ah. Malick bàyyil yii Malick yi ah yàlla baax na ay ca mi ngi noonu euh, ñuy nuyu Kébé ak euh, Kébé policier moom ak famem ak jabaram xam naa dinañ ne animatrice yi bala ñëw problème dëgg la dama amaat beneen problème nii il faut que policier Sénégal yi surtout armée Sénégal bi maa ngi lay nuyu armée bi armée bi fu mu nekkee yéen wokk armée bi fu mu nekk armée bi armée bi dafa fépp Ah. ah dafa bëri mi ngi fépp. Camp Dial Diop am naa accès Dial Diop man ki ma amal problème Camp Dial Diop laa ko ayca mi ngi noonu ñu bàyyi euh, bàyyi Omar Omar ayca ma may la loxo nga ñëw taxaw ñu Omar pare nga. mais mais mais da ngaa ma ci matinale dama sañse de da mais gis naa la. yaa ma dàkku te yére yu weex tàll ak daal yu xonk ci suba. mais sinon nga fajar mais cool mais pare nga. defe naa loo miin la. waaw sa yëf la. miin naa ko xam nga ko. waaw yàgg na caméra jox la micro. waaw kon sénégalais yaa ngi nii nuyu leen. salaamaaleykum waa Sénégal leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam à travers la télévision Futur Média la ak SSP ah. ñu ngi nuyu ñëpp. yow dama lay formel waa SSP sax. ah bon yow dama <laughs> daf mel da nga am invité de. ayca na yow non invité yi dama lay bàyyi ak ñoom. Mhm. Biba la ayca na ñëw. Biba. Mhm. ñu bàyyi xel ni euh, mi ngi nii euh, ndaw la tout tànk la dañu koy teg ko xool ndax suñu borom dina ci def ngëneel yàlla na jaar fa mu daan jaar di ko mhm. yéen euh, sénégalais yi ndax xale bu ko tux yàmba tële sàcc tëkoo ñaante ko bu ñëwee ne la teg ma loxo rek defe naa war naa laa yoo a na man ak cœur ouvert laa ko defee yàlla ma ci yàlla may ndam ci barke Serigne Salim fay naa la ak euh, sa waa def ay yëf dialogue yéen ñaar ah Biba Biba maa ngi lay siyaare maa ngi dellu ci lan nga ne sant yàlla bu baax ma bàyyi la nga ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo lay seetaan à travers la télévision Futurs Médias waaye ñu ngi nii ñëpp di ziar yi ñëpp ñëpp jàmm di kontaan bu baax c'est Amina sama jigéen suma xarit suma mag moom sama yaay daf ma ko dénk. ndeysaan. sànq ba di ma seetaan bu ma ne boo demee Amina ne ko bés ni ki tey mooy sa yaay. ndeysaan. waaw yaay naa ko dénk dénk dénk naa ko sama yaay tamit dénk na ma ko kon yaakaar day daal di neex rek. artiste waykat di doo door soo ko door bi nu muy demee. waaw soo ko door moom. Euh, day métti ndax am na lépp luy dugg rek li si zoogu doo day métti ndax man Jurbel laa dëkk fi ñuy wax kër gu mag ma jóge fa ñëw dakaar bi ma ñëw Dakar wax lu yéeme yàlla xam ne fanaan naa sax si ay mbedd ndax bëgg a woy bëgg bëgg bëgg bëgg woy gi mu bëggoon woy wala asim croisement Cambérène fanaan naa mais su ma xëyee damay ànd ak sama gaay mhm. dem dem dem ji bu guddee gaay seen kër ji fanaan bu nu waxee waaye yow tëddi ma ne la waaye naa dem tëddi damay damay rey temps quoi boobu am wala ajib damay damay toog xam nga ba ba ba gars ma daal ma daal di xaw a soulagé wu noonu tuuti si jaaykatu café yi toog fa des fois bu fa bu kooku wàccee ma dem feneen toog fa bu kooku wàcc ma demal feneen toog fa ba bët wala ajib noonu laa ko ndax ñàkk foo tëdd amoon fu ma dëkk boobu métti woon na kenn surtout bëgg a teral sama yaay rek ndax man sama yaay mooy sama xarit mhm. ñëpp xam na loolu ma lépp du ma mën a def ba teral ko rek incha allah buy metti dinaa si xuus dinaa si jaataay benn yoon. da nga jékki rek di way wala da am ay mbokk yi way wala. non jékkuma jékki nag di way ndax man famille famille famille géwél laa bokk fay si ndey waaye sama papa fay sant. sama yaay sant fay may bett bett piir sama ay bàjjeen maa di nuyu di nuyu waa Jurbel ñoom ñëpp di ziare sama papa yeeg bàjjeen boo ma kenn maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di leen bëggee dina xam ne sa doom seen doom namm na leen bàjj ñëpp dañuy woy sooy maam dañuy woy ay woy séeréer ma ne tamit ma ñëw fekk xam nga gars yi di kii rek ma ne te kii mu daal di neex mu daal di kii ah, mu daal di kii am na am na ay programme yoo xamante ne nit waaw wala commencé nga cee tënku waaw am na ay programme yoo xam ne ñu ngi koy waaj waaw mhm. ñu ngi koy waaj euh, am na concert bu mu bëgg a def sama koñ incha allah xam naa yàggatu dara tamit ñu ngi ñu ngi studio di am ay morceaux mm-hmm. di di ñaan ñëpp surtout sénégalais yi ñu jàpp ndaw boo boo nekkee si benn affaire di liggéey te li nga nekk mu nekk loo xam ne lu métti la mm-hmm. il faut que ay nit dañ ñoo si teg loxo mm-hmm. ba mën a dem kon nag ñaalal loxo di sàkku ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen jàpp si te te te te te ñu si mën a jàpp daal bu affaire yi rek ndax lépp bëgg a tere suñu waajur kese kese ko mën tax caaxaanuñu fooñu defuñ dara lu bëgg a tere suñ ay waajur kon ñu ngi ñaan yàlla ñëpp jàpp si rek mu daal di réussir si jàmm sa mel dafa mel ni dafa da nga am ñoo àndal waaw dafa am ñu àndal ngir a wane dara rek waaw dafa am ñu ma àndal te ñi ma àndal son mhm. ndax ko ñëpp xam na ne man si soirée yi lan ma xam ak si jàkkaarloo yi mariage mhm. parce que woykat laa du ma taasukat mais nag des suñu ay géer dañuy xewle indi bongo yi mhm. xam nga defal leen parce que kenn ku ne ak la nga bëgg ñi orchestre dañ bëgg ñi ay bongo te yàlla dimbali nañu fépp la ñu defee waaw fépp lañ ni ki ma àndal muy Ameth Lam jarbaatu euh, Aline Mbaye Nder xam nga muy muy sama tëggkat fu ma dem mu nga fa ma xewle mu may tëggal beneen booy bi di ma aw muy As Mbaye mu nekk xale bu moom tam moom tanal te ma rek maa ko mën a yëkkati wala asim booy mu nekk booy bi yaru kese des muy muy kombe borom tëngeej sama xarit moom ma rek la bëgg si àdduna ñu ngi ne di ñëw gis des nag borom taba ji ngeen gis nii gaalet borom taba ji kii wallaay azim xam naa miin na fi sax mhm. waaye te wallaay azim li ma defal nii lu réere si man dama ko wom ñëw bu ko neexoon ñëwal nii bu ko neexoon mën dama bëgg dama bëgg mu defal la ambiance ayca na ma defal amiin. maa a remplacé suñ suñ suñ balaa xam nga suñ balaa dafa dafa doy waar. dafa doy waar tey. البحر nekk nii ma bàyyi kook Omar ay ca Omar def ci lu ko saf ne Omar tey dafa ñëw pour euh, wone boppam pour euh, wax leen ne mi ngi ci yoon leen ne à partir de tey nag lépp luy information bu réel ci réew mi Omar parce que fausse information yi bari na parce que loolu mooy liggéeyam moom hmm, lu nit def yoon mu dind ko tegal la yoon Euh, xàmmee leen ko parce que euh, booy bi xam naa ko bu baax a baax ah. mës na ma interviewé defe naa. si euh, Plaza si plate Plaza xam leen ne yàgg na ci métier mi métier nag boo ci nekkee fii day dem beneen côté bi ñu xool ndax foofu dana dox foofu bu doxul ñu puusaat la yóbbu la fa yàlla na nekk fii ni mooy dox ci moom ay ca ñu bàyyi Omar li mu def gis nga ko. en tout cas man li ma ci gën a jaaxal mooy xale la talent bi macha allah voix bi dafa exceptionnel mu acapella ñu xool. waaw. dafay ñu jël buri buri buri buri buri tamala walo sangu sangi ye ay de bëgg la yaay bala ci prisma yaay cukuleegede sa ndar fay ngo xaan ngo nem ma bala ko tel na yaay man dina wu naa la waaw waaw la way muhammadu rasulillahi mat gay joora ñameek maar xaasim ak zaynab ay man de fonku naa la talibi sëriñ Mbay Mbay borom njaareem kii mooy bàyyi Muhammad ñëpp moo jur doom tudde Seydina Muhammad juraat doom tudde Seydina Muhammad rasulillahi rifaato yee waaw ma de bëgg naa la fokk naa sama waaji xanaa xamuloo ni ndaanaat di dun mën a way yomb mën a waaye xam la ngay wax a jafe soo ma invité naanaan fay gannaa nga sa njaay cukkuli nga di seen jikar mooy sama maam Muhammad man dem naw naa la ngi sam ngun jàmbaar nga buur teral nga la teral nga say maas seydina muhammad la duppe boole yeenu or ba sa madina njol makka yaaleen na raw doo seen waaye ki may bëgg a way kii mooy Cheikh Bassirou Gaye seydina bàyyi Souleye Gaye mooy baayam xanaa xamul lan amina ba bëgg way naan ay borom njaareem Serigne Touba Mbacké la waaye dëpp ko dafa bëgg lool iste jeey fatim pendak la ko jeey dameel fa joogu dameel da celaw dameel sambaaya faal eey basiiru man de teral nga ma waaye kenn way mooy Ibra Fay fay biram penda waagaan borom PDC ay waay moo de naw naa ngi sëg may woy nii boo invité waate keneen lii may harmonie suma gémmiñ du fi def ma doon <laughs> way dan koy dan koy koy man amina yaa bëgg Serigne Fallou Mbacke bal ay siburi Serigne Mbacke maaram con Ibrahima ndaamal la sa daaru Baye Cheikh Abdou Karim borom maqaari man axlaaki ma waxoon seen ñaari kuy mënuñoo bokk benn mbalka da ngay dem ba jamono jot nga ñëwaat Karim xanaa xamula yow yaay Fallou Serigne Fallou Mbacke Baye soxna may kabiro Serigne Fallou Mbacke Baye Serigne Serigne mu Serigne Fallou Mbacke man moom laa gëm moom laa yaakaar waaye damay woy sama jabar ji nga xam ne teral moo tax ma mel nii loo koy wax baby I love you love me my baby naa la lool sopp la adda borom nag ak meew yu lan koy tuddee moo bàyyi pëti mbay bàyyi ndey joojo kii daf ma teral lool daf ma bëgg lool ey baby L'amour qui est au monde pour lui du monde assassin se sont rencontrés quelque chose. Eh si nous attachons, mais alors que ce n'est pas de nourrir à ton égard. sama jabar jooju. <laughs> non Omar Aïcha xanaa kii rey Omar. kii rey de. mais fi ngeen toll ci musique ak nouvelle génération bi. parce que bu ñu yàlla bàyyee mais ñu wér ak gudd fan ak tal di ngeen bokk relève musique Sénégal fii. yow moom doy na la ba pare. non il a une voix exceptionnelle. oui. Hmm? doy na ah. ci réew mi yàgg naan artistes mm-hmm. na la lim la jox doy na la. am na talent bu nekk ci moom. waaw man yëg naa mais est que yaa ngi natt sa bopp. ak ñi nga xamante ni du jóge seen ay réew. di ñëw fii ci réew mi di bégal waa réew mi comme ni ñu ko gisee ay nasaraan ñu ngi ñëw ci Sénégal fii di feesal place yi nga xamante ne ni Sénégalais lañu est-ce que yéen ngi natt ci seen bopp ci loolu pour gën a liggéey. li ma woy sànq. Mhm. man boo ma rek sama karam rek. xam na artiste nga artiste yii da koy am da nga yor caacu artiste. Mhm. pare xam la nga. Mhm. pare mën way. ba pare wóolu sa bii. sa baat sa baat bu boo defee yow pare nag amal fit man man ku taxaw sama kanam damay taxawaay man man amul sax ay yaakaar ku taxaw sama kanam man maa taxawaay man. boo gisee ma laaj la loolu sax ñun dañoo mbalaxee de trop. Mm-hmm. te pour nga génn il faut nga mën a diversifier. laal fii di mën a laal fee est-ce que yéen ngi préparé wu pour loolu. waaw ñu dem rek BCEAO man ak ay ay ay mm-hmm. ñu ngi foofu mm-hmm. parce que copain moom moo leen xam. ñuy installé foofu di jouer reggae xam ne pourquoi pas yi mën nañoo ma boole ak ñi nga yëg fii ma na ko man fépp laay way barki laa ilaha illallah ma kaay ma ñëw mu boole ma gaayo ma yëg ñëw seen musique way affaire yi naay apprécier jël sama numéro ba sànq rek bi ma ñëw maa ngi déggante ak ñoom daan émission bi ñoom tam maa leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay man liggéey rek liggéey kese laa xam ak bëgg aar ak bëgg way wala parce que boo nekkee si euh, loo xam dafa metti dafa doy waar ngay ngay ngay puuxante la expliqué sànq avant bi may a mm-hmm. di puuxante di puuxante ba yàlla diglum la may biir Dakaru mm-hmm. kon loolu yaakaar ne ay caaxaan mayetu ko dëgg la ay fo mayetu ko mm-hmm. dama dama dama daj dune sama àdduna dama sama àdduna wërsëg ba yegg seegul mais bu dee coono sonn nga non sonn naa moom bu dee aar moom wax dëgg yàlla liñ ko Ah, xëccee nga ko nu ne yaa ngi jàpp ndaw mais bu mag bi a ponkal bi yàgg ngaa sànni ponkal bi ponkal bi tamit foo ne ngay ñëw tamit os bi na ko fu ne mais incha allah dina ñëw bul xaddi ndax olof nee na ah non bu télé la waxal lépp jëlal micro bi non dax moom ndeysaan ak ah, moom <laughs> moom ndeysaan li tax fu may bëgg fu may dem yóbbu ko ah, dalaa bëgg daf ma bëgg kii man kii laa gis seul awkat boo xam ne dafa bëgg artiste am. kenn ngeen da laa yéene dafa ma yéene maanaam su may def sax mhm. day sot su may woy da nga gis ni muy def. day di sentir li may def. <laughs> ba pare waaw su ma su ma su ma su ma fàttee dara mu xool rek ma wax ma xam ma xam fa mu jëm. mais Omar xam nga man lan moo ah. mhm. dafa bëri ñu am talent parce que kii boo dégloo voix am mais lan mhm. moo leen tënk man loolu sama xam-xam yeggu fa lan moo leen tënk. dañ soxla ku leen jàppale wala xawma xam na Sénégal label tey boo ne lan moo leen tënk ku mel ni exemple laay joxe ji euh, nu mu tudd ji bi gisee gisee mhm. mais kooku waroon na nekk artiste international démb gisee woyeewul sax fii ak voix traditionnelle bi mu yor xam nga dafa am artiste fii lañ war a toog mhm. artiste u réew mi lañ mhm. am ñoo xam ne bu ñu musiqué da ngay artiste u réew mi Demba Guissé da ngay gis Baaba Maal fi nii ci moom mais lu leen tënk lan la mais genre est fois tamit maison de production wala label bu bu xaw a Sénégal parce que dañuy wax label label label mais liggéey label dëggantaan njaay bëriwul label yu ko fii def parce que label dafa war a assurer artiste bi te ko ci ay conditions yu leer ñu liggéey ñoom ñaar marchandise booy jaay da koy valoriser. dëgg la marchandise booy jaay da nga koy teg fi muy mais léegi label yi lu ci ëpp dañ lay génneel benn seen benn clip rek bala nga dem. du yoon te loolu yóbbuwul artiste fenn mais aussi. il faut mu nangoo tënku. nangoo daj coono. Mm. nangu ñu teg ko fenn pour woo. nangu ni borom label bi mooy boosam. mooy boosam pour mën ko jaay. parce que la plupart yenn label yi waxoon naa ko fi raxoon ko mën a jàppale xale a mhm. que souvent succès dafa doy waar dafa mel ne xale yi succès. parce que man je me dis que le fait que di dem à l' étranger Nigéria fu ne ak. mais xoolal ji indi Bouba. pourquoi pas oyofate bi nga xamante ne ni ñoom am nañu ko pourquoi pas suñu artistes yi ne fii ñu oyof oyof googu mat mat googu noonu di. ànd yow jàpp lan nga xalaat ci lii ñu wax lu leen tënk. c'est que yéen yoo xam ne tamit danoo danoo xaw a rëy di nga di nga di nga di nga euh, àdduna. Mhm. tey mi ngi mel ni tey yow mu ñëw fekk la nga nga am nga am nga am body amoo tubéy amoo dàll. Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi yow pour li nga def ba génn parce que body rek nga am amoo tubéy parce que tubéy boo comprendre nga tey ku la ku la ku la woo si ruq jox la tubay jox la daal ba nga mën a génn kooku yaakaar si yow ay milliards bul xool loolu. <laughs> xoolal fi mu la fi mu la génn ak fi mu la yóbbu ñu ngi nit ñu ngi nii man boo man laa wax. nekkoo ci benn label nekkoo ci benn label. yaay defar lépp sama bopp. soirée maay ko defar sama bopp mariage yi noonu wala suñu loxo ñi nga xam ne yor na label ñu ñëw doole ñu parce que talaa mu ngi fii mais ñàkk gis ku ñu jàppale tamit moo am. mais man moom wax dëgg yàlla maa koy maa ngi def am na benn label bu ma signé woon waaye damaa dem gisuma sama bopp xam nga parce que des fois tamit gars yi dañ lay dañ lay kii bëgg am yeneen yeneen ñu def tamit. loo tuddee gis sa bopp. ah lu ma. loo tuddee gisuma sama bopp. loo comme comme mu ngi mel di nga di di nga di nga tey yow mi yow mi tey xëy di jaay di am laay. Mm-hmm. yaakaar naa sa bagage boobu noonu da ko da nga génne ñu mën koo gis n'est-ce pas mhm. mais boo yoree sa bagage def ko si mbuus ña ngay jaay def ko si mbuus si kan mooy jënd wax gi ba laa dégg nga ma dégg xam naa li bëri instant dañuy kaas yenn ci label yi waaw ah. mais dans les normes label bi buñ dee cent label bi mooy moom soixante pour cent yi ah. artiste bi mën na moom quarante pour cent mhm. mais artiste yi dañ koy bañ loolu lay waral label yi di xaw a reculer wu mais man nag je que li tax ñu naan vrai artiste mhm. tant que siiwuloo ba yegg fi nekk goo artiste mhm. te pour nga yegg fa il faut que nga nangu label bi di wu xaalis nga koy yëg bàyyi ci biir mhm. il faut nga nangu ñu exploiter pare nga nangul label parce que pour nga dem il faut que nga nangul nit ki nga àndal li mu bëgg c'est vrai que gor am na foo xamante ne boo ko fa bëggee yóbbu nag day bañ <laughs> mais ne c'est le minimum nit war na koo nangul nit. parce que nit ki nga xam ne moom moo pare pour defal la clip clip bu doy waar nga bëgg a xool contrat bi mu signé ñaata nga ci am xool concert bi mu la tëggal ñaata lañ ko fay est-ce que dóoru la il faut que defe naa wala am benn concert stade. Euh, gañe ci benn deux cent mille xam nga mënuñu ko bokk artiste bi yow yaay at yow yaa war a dem woy yow yaa war a man man yow bul xool xaalis bi biñ ma fay yow nit ñi ma la présenté nga war a dem ca concert ba stade spectacle bi nga war a présenté nit ñi bul nangu dañ may gis nga fii ak a ngi wax naan dañ may nax dañ may exploité du ngeen dem fe li ngay wax ni sëñ Fallou moo ko njëkk a wax nit nit pour mu tekki il faut que ñu nax ko nax la man moom surtout si musique man man man ba baa bañ ma ko ma nax man na ma àdduna xam li ma bëgg sama musique naa koy def man loolu moom intéressé mais du ay ay ay yooyu noonu parce que xaalis boo ko jiitalee si aar nga dem parce que aar ñett la ñi dañ koy def ngir jigéen ñii dañ koy def ngir xaalis ñii dañ koy def pour pour pour passant nii pour tour waaw ak waaw ñii di ko def ngir amour man nag amour boobu laa koy def man dama koy def bëgg gi ma ko bëgg ak bëgg gi ma bëgg a teral suma aw suma suma waajur suma yaay mais est-ce que yaa ngi investir pour ci musique parce que génération bi yéen ñëpp yéen a war a def ci musique pour mu jox leen leen nam est-ce que yéen a ngi investi. ban investi noonu. waaw am investi ci musique mooy ak sa tey waaw yaa est-ce yaa ngi xalaat sa futur tey dema dem ba li ngay jot a gagné est-ce que yaa ngi ci denc tuuti pour mën a am sa orchestre bopp pour dema dem ba joo démb rek démb rek sama yaay am na am na ñu ma booleel parce que ma dama koy wax dama naan man dama bëgg comme su ma demee programme lu ma am. bu ma jëlee li ma jox sama yaay ba pare yenn yi ma def ko suma kër yenn yi dama ko jël ma denc parce que bëgg naa am samay samay samay matériel bopp sumay clavier ay batterie loo xam ne sax si bopp la man maa ko moom foofu laa teg sama bët te ñi si mën a jàpp tamit nañ si parce que tamit am na loo xam tamit dafa metti comprendre nga bu fekkee borom borom xama nga war a fay location war a yóbbante dëkk ba xama wa doom papa jabar xam nga am loo xam tamit mënuloo ko sa bopp daal il faut que ñi nga xam ne tey di mën a leen may na leen parce que doole yemul ñu ngi tàllal ñooñu loxo ñu ñëw doole ñu jàpp. te ñoom tamit amuñ beneen métier boo xam ne war nañ ko boole. waaw fa laa bëggoon ñëw parce que instant bi dafa saturé na. Mm, te style bi dafa style yi xaw a niroo. style musical yi. pour xaw a niroo. pour nga génn pour nga débarquer wu faaw nga faw nga am benn touche spéciale. boo indi est-ce que yaa ngi travaillé ci loolu. waaw loolu ñu ngi koy def parce que am na ñoo ne maa ngi waxtaan ak ñoom dama bëgg a tijji benn saaru euh, nu ñu koy wax sax. fi ñu jaayee rek nu mu tudd njàng mee soriwul. pré-apporté pré-apporté xam nga pour bu bu xaalis bi ñuy bi ñuy gagné ñu ko ay matériel xam nga parce que xam xam loolu sax maanaam maanaam loolu lu neex lay parce que boo ko tijjee sol ko ñu ne biggati diw laa jënd laa jënd diw kii bi euh, daal wala yére loolu daal mm-hmm. comprendre nga. moo tax loolu ñu ngi ko ñu ngi siy liggéey tamit di ñaan yàlla tamit ngeen ñaari sotti mais nag am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñuy dooleel ku si mel ni maman Bigué mu ngi lay mu ngi lay nuyu. maman maman Daba. nuyul ma ko bu baax. Yirim Farawaad Ndiak Daara Farawaad Farawaad Ndiak mhm. muy muy ku baax bi may dem nee na ma Amina Poté. waaw ne ko kooku man maa ko bëgg borom Amérique. jeex na léegi est-ce que duñ ko bàyyi mu demaat ci ambiance tuuti. bu ambiance ñu jël de. ba xaramete sama maman sa gaañu nangu leen fu ngeen jaar leen waay ba xaramete sama maman ca gaaña nangu leen fu ngeen jaar ma waay leen ba xarame sama gaaña waay gaañu daan leen bu daw lay woo aji nangul leen fu ngeen jaar ñu daan leen waay la ya maama mën saka ñaar jombe ko misi ngi di ñaaw taalibe sëriñ saali woo way wi yaay la ya sama maama mën saka America yene fara wat jaak tamit euh, ña ngay bëggee ki nga xam ne mooy Omar mi Soop ngi lay wax bienvenue di kontaan ci bibaam mi ci baat bu neex bi euh, kii mi Maat Diop Amina jox ma ci teraanga yi Maat may nañ la cinquante mille ci sama mbég kontaan moo tax ma def loolu <laughs> tey loxo yi ci vingt cinq mille la yemoon mais euh, bëgg bu ma bëgg ak ñaari xale yii ma toogal ah ñu nekk ci seen e, buntu àddina c'est que gën a metti bu jigéen da ngeen foog ne àddina jigéen parce jigéen mën na am frère bu ci frère am mën na am jëkkër bu échoué ci jëkkëram mën na am ku ko bëgg te yàlla jàppale wala mu lijjanti ko ci pet mais góor munu ko surtout góor bu gore mënoo mënoo fen mënoo jaay sa bopp góor dafa sonn ah moo tax moo tax moo tax moo tax suñu maman Abi Ndour waaye na ko mu ne góore ko sonn billaahi parce que mën nga ñoo may loolu yaa ngi wax lu doy waar waaw mu ne du yelwaan te naa ñaan Malick est-ce que mën nga ñoo may abindour góor rek sonn bi ngeen abindour lu mu wax ñu koy wax heure na heure ménage euh, yàlla na yàlla na sëy bi barkeel suñ may la ci euh, lu kawe sa njort boole la sa jëkkër sa jëkkër yitte la yërëm la euh, teg la loxo te xam ne jigéen ju jàmm nga moom abindour dañ ko doon dañ ko doon jël démb am na boroom kër wàllu ñu xaama ñëw kong la sista xaama ñëw kong la <laughs> <laughs> ay ca nga ne euh, woy bi woy na ba ni góor rek a sonn mhm. du yelwaan ok ok du yelwaan mais góor moom góor boo ci góor ko génnee ci góor mhm. mu ne du yelwaan te rus naa ñaan nit nag bu dul yelwaan du sa ñaan mhm. dafay jaadu muy góorgóorlu muy gën a yokku ba pare ñi mu nekkal ñi ko entouré ñu xam ni li leen war a jàppale ko parce que ku dul yalwaan ku dul sa ñaan. Mhm. di góorgóorlu. mais gis nga léegi réew mi ni ñu jëlee gor ñi cuub leen ñu nekk ay jaam wala yow gisagoo ko. waaw loolu ñëw après incha allah. ci yeneen gis nga léegi gor loolu dinañ ci ñëw beneen affaire la dinañ ci da ngay gis koo xamante ne nii. ba réseaux sociaux bi ñëwee ñu dem ba ca biir gis niñ leen cuubee def leen ay jaam. mooy li ma lay wax da gis koo xamante nit bu weex la. Mhm. bu set bu set wicc bu amul dara benn benn nit toog fee ba mu neexoo xool da gàkkal ko. mu pentir ko ñuul. waaye da koy sotti ñu xonk ñu de. dañ koy yàq ba mu yàqu. man <laughs> maa ngi soog a am compagnon de guerre xale bii ma àndal dana yëngu réew mi Aïcha yaa ngi fiy toj ñu demaat Facebook live euh, mayewaat ay euh, cheveux naturel ak xaalis ki tudd euh, Ndeye Marème Niass Ndeye Marème Niass may nañ la fi cheveux naturel mën ko ah, en tout cas merci beaucoup ci Amélia ci maquillage bu soft bi mu ma defal ci ma ci ma ankay Amélia. booy dem fa xool. da lay defaral sa karaw bi bopp. <laughs> non il faut que ma yóbbu la fa yow fu may dem léegi dama la yóbbaale. jeex na. Euh, Ndeye Marème Ndeye Marème Niass. Euh, Ndeye Marème Niass may nañ la cheveux naturel bu mar cheveux mën nga ñëw fii nga jël si ko nga waa waajal seen tabaski tabaski bi dee mën naa mën jël pour jigéen ñi ngeen bañ a nekk di sonn ah ñi ci seen wërsëg nekk fii dinañ leen may ay kii mu ngi tudd euh, Pape Goro Diop Amina macha allah yaa ngi puus booy yi nee naa la àddina bu fekkoon ne ku yor sondeel boo ko téyee ku bëgg a taal day leer. nañ <laughs> mais gars yi dañuy yor bañ nit ñi taal ñu yóbbu ko ci kaw sondeel bi ngelaw li fay ko. nga ne jox ko mu wax dégguñu. borom xool moo raw borom bët yi feelagul. dëgg la xoole ba gumba dab la da ragal si biir lëndëm. dëgg la waaye bu gumba da ngay ñemeb lëndëm. dëgg la maintenant contact mu tàkk yoon wi leer ñu jaar. <laughs> ayte ñu demaat Facebook live bàyyiwaat la ak Omar xam naa question pour yow euh, kii mi ngi tudd Jaari euh, Saw madame Jaari euh, Saw madame Mbaye may nañ la fi cheveux naturel la bëgg moom i tamit Jaari gisuma ma gis rek Amina macha allah yaa ngi jàppale artistes yi mais ñu xamal ni yow la ñuy topp merci beaucoup Jaari Saw madame Mbaye may nañ la fi benn cheveux naturel dëggu dëggu tudd ñëwal ci télé bi ñu jox la ko ki mi ngi tudd Abdoulaye euh, Kanante yow tamit may nañ la fi euh, mille francs di nga ko gis léegi message bi ci sa télé nga ne yow loo ko bëgg a wax li ma ko bëgg a laaj rek mooy bad buzz artiste daf koy soxla mm-hmm. xamu ko wax ko ko ci woon. maanaam créer benn genre buzz. buzz boo xamante ne soit muy doon lu dëgg. lu positif wala négatif bad buzz mooy est pare nga pour ñu defal la buzz ci euh, yoon bu positif wala yoon bu négatif positif mooy li baax négatif mooy li bon dama dégg dama artiste bu mag bu ko mës a wax su jumul titi la mhm. mu ne góor gi si fii mhm. musul dugg ci bad buzz dëgg la te kenn mënul wax musique Sénégal fii ba pare doo ci doo ci dëgg la li ma li ma lay wax noonu mhm. dama si si benn affaire muy sama papa Thione Seck ah na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te xam papay wàlle sama xarit bëgg ma lool barke Seexul Xadiim xale bi dafa weex de. doy waar dafa doy waar parce que dafa wax rek. tak ma dégg foofu wax ma waaw man nag. Euh, mooy lu normal. <laughs> c'est que man man xama nga Sénégal. dafa mel ne nag da di xëtaate de boo sànq sama mbag da ngay wekki. kii ah day wekki mooy ñoo xam ne bu ñu ku jegeel ngàdd la. daw naa ñaari yoon <laughs> téye moom. day ree di day daaw yaa ngi may dégg waaw euh, di nuyu Waly suma suma suma suma frère mhm. euh, euh, moom tamit carrière jàmm macha allah man li may wax sax su ko bëgg a wala azim ku bëgg a siiw. Mhm. yow lay neex. nga siiw nga siiw waaye nag siiw googu dafa am lu ko daax. Mhm. muy liggéey ba am talent. Mhm. jaar tey yàlla yeex. siiw ci sa propre. gré gré bañ a victimiser wu. bañ a lëjal réew mi. waaw li nga bëgg a wax ma yegg waaw maanaam siiw te doo taxaw xam nga tey bu la neexoon taxaw fii wax ñu fi nga jaar ba pare bët bët jooy jooyu métti te mën naa xam naa gaaw a jooy nag kuy jooy booy Sénégal Sénégal dañu gaaw a yërëm borom rongo nga tooñ ak ñu tooñ la nag non fii kaay ma wax la na soro fii dañ lay tooñ nga taxaw bëgg parce que àddina ba muy baax même alxuraan wax na ko buñ la tooñee boo mënta baale fayul boo fayoo tey nga dee dootoo ko defati xamuñu ko tooñ sax. tey kii bu jooyoon léegi daggate. naan bii ba. waaw jooy. xam nga jël sama jooy yi partage ko àdduna. mais jooy nag dañoo mënul jooy. non man eh ah maa ma boo xefe sama ma jooy fii. jooy yomb na la. ma dàq jooy si àdduna. non bu fi jooy. <laughs> man bëgg naa tey sama image euh, ma defar ko su ma demee ba samay samay ay doom màgg.

man ak sëñ Touba. yéen a bokk koñ. ñoo bokk koñ xam nga tax ñoo bokk koñ. leeralal lool. non xam nga tax xam tax xam nga tax ma ne ñoo bokk koñ. maanaam fa mu dëkk. waaw maanaam fa fa mu nekkoon. maanaam fi sëñ bi sancoon. fa sëñcoon. fa la sa baay am kër maa ngi ñëw fa sëñ bi sancoon. maa yow bokk koñ. waaw dafa garab mais loolu ay da nga naan fa bi wàcc. fa bi fa bi nekkoon. fa mu daloo kër gu mag. Ah, ak ah, kër ñoo jàkkaarloo ko. ah te def na ma fukki at ak juróom. macha allah loolu noonu. na dama bokk nag ñu dégg dégg fa ma yàqee. bañ na tiktok booy dama lay door de booy. na leer ah. gaaw si kii naan ndongole la wax ak nangam nangam. non ndongole waxul ma si ci wàllu laa gëm. Mhm. àdduna ak alaaxira moo fi ne moo te moo fi tam moo fi ne bu bëggee réew mi neex ay Malick bu fekkee ne kilibu euh, euh, euh, Abi Ndour boobu di delloo si na nga ko kilib bi foog ñu commencé léegi di ko di ko di ko jàllale waaw c'est que dafa am ay ne ni moom laa ko bëggoon laaj sànq ku ci mel ni légende yi fi nekk fo Youssou Ndour papa Ismaïla Lo papa Omar Pène papa Baba Maal dem si yàlla si dañuy way ay way yoo xamante ne ni Mhm. jarul ngay dem école pour jàng. jaru ko à travers loolu yow mën nga ci génn. Mhm. bu la yàlla dimbalee bu la yàlla tegee loxo à travers seen ay way yéen. Mhm. non man nag loolu jàngat la pour yéen parce que ñu bari boo waxee ñu ne amatuñu lu ñuy wey mag ji wey ñu ciy jaaraat rek. mais jaaraat bi am lu muy laaj. liggéey bu différent ak ñoom sax. soo soo déggee bi may woyee. xam na man damay déglu ay mag. boo xoolee sama cadre voix ak fa may woyee traditionnel laa ëpp li may déglu. ci kan nga gën a focus ci mhm. ñoom. waaw muy. est-ce que mën nga ñu defal benn acapella ñu xool est-ce que parce que nit boo koy xool. ku bëgg war na dem ba nuroog moom. Mhm. gis nga man su la bëggee. Ah. ba ñëpp naan poté diw la bëgg dinaa toog diw. am ci moom tuuti rek. am dafa am benn dafa am benn way bu bu mu doon way. way bu daw yaram sax. Mhm. way boobu noonu dama koy déglu lu bari. te heure mu demee daf koy way. Ah? lu mu ci wax. xujama xujama ma samba ku sa baay denge jooy nu buur nga xujama xujama ma samba ku sa baay denge jooy nga wucci bul jibaala ma samba ne na faal xujama mu ne jakko ma njaay farsal sigi ji ko duma njaay jama ma Fatima yaa doona lii sama jigéen bi borom fas mbaa moom dangay naa baayam borom PDC Lamp Fall Babine Mouridina business lay bëgg a wayal Cheikh Ibra du marda yi dee la ka nga ma teral man ñi bëgg na la loo ka ليلة القدر خير من ألف نسأل ملاح إكتوروا فيها باسم ربي yëgul dara bu ñëwee wax ko xam ma mën tax mm. ba ku mënul dara mm. mais nag Sénégal xanaa xamoo dina jafe nga gis artiste ay temps nga invité koo xam ne da lay indil problème la sax sa journée mais nag des fois c'est rare nga invité xamante ne mënul dara xamul dara mais mu dal la yow yaay man maa ciy nekk rek di passé muy dal <laughs> may dal <laughs> ay temps nga invité koo xam ne doo xam loo koy wax mbay wala ren la tëll gi bëri rek mbay baax na doo xam oh, dee ma yërëm dee ma yërëm ku ci amul talent mu ñël nga wala sax ngeen indi benn feemu trente minutes koy jàpp mhm. ah way yaakaar naa artiste a jafe si way mooy live live lii moo gën a jafe si way am na ñoo xam ne tey boo leen yóbboo studio léegi ñu toj fa waaye boo leen tegee fii plan léegi doo bëgg lu jël écran yi rek xëpp nañ ko. waaw mais loolu loolu nag dara nekk ci loolu la woo ko ne ak fa nga mënee. parce que yéen xaaral Sénégal yéen souvent man damay bëgg génn sax tontu souvent ngeen ne kii is kii mais ku ne ak li mu mënee. kii live la mënee. kii mën na mënee live te du mën studio. kii mën studio mën live. te du man sañse studio mën sañse kii mën live. man mais man am man xam mënu ma woy da mën a si cadre liggéey Amina Amar ah? tey jii nga man mën naa animer mais mënu ma non si yow laa jëm xamante ne kii macha allah. man ma solo a a polyvalent. maay chef ci sañse kat yi. Amina li da nga war a mën a polyvalent si li mhm. allah. Mhm. macha laa wax nii laf cat. yi ngay def nii ay ah. sa koy yooyu yaa ngi may comprendre yow lii la teree dem bàyyi xel a bari kii du dem non non damay wax ak moom muy kii comprendre moom dafa mën a sañse boo ko gisee na koy bëgg far force loolu suñu borom moo koy def si nit am na ñoo xam boo bëgg far mu lay neex même man nag Sénégal dama bëggoon a xam franchement sañ si xanaa du sol la neex. booy li nga def nii. Mm, mm. des fois nga sol lu la neex waaye du. mais booy ay temps nga yàqamti xëcc benn pàcc laal ci daal yu baax boo demee kenn du xam ne pàcc bii. mais dafa am ay nit yoo xamante ne ñu ma ko mën a waxee yàlla moo leen. xoolal yooyu daal 300 euros lay jar bokk la baan yi jar 7000 xaw ma 20000. <laughs> man la dama loolu bii bu 300 euros. génn sax dañ naan sañ na. non man booy soo bëggee ma defal la sëru Lagos ak toj fii. waaw parce yàlla moo ko defar sañse sañse du lu sañse xel euh, euh, Cheikh Ibra waaw rakku Aïda Doucouré waaw Aïda Doucouré sama yaay waaw waaw waaw waaw mu ngi lay mu lay nuyu. Mm-hmm. te nee am nu war a jëflante ak yow. Ah, na jëflante ak man nag. waaw kon mooy jëkkëru maman dama bi ma mm-hmm. bi ma doon woy léegi. gànjol gànjol bi. macha allah borom Amérique kooku nga xam ne dafa may woo surux ba ma ñëw. xam tabaski moo bu mu àqasee gaaw. mais nag est doyul fi ne nii ñi leen di may ay xaru tabaski souvent ñu jëndal leen yére est-ce que ñoom. comme ça su ma bëggee bi baax genre su ma bëggee bi baax ma xool lan moo xale kanam ma jënd benn guitare may ko mhm. jënd benn xajal maa ngi lay waxal ay yëf ah, mais ñun dañ sonn artistes yi ñu topp may million cinq ñoom it tamit ñu koy tasaat ci seen biir amul njariñ je man parce que xale yi lii mooy ci lii lañ mën a am xaalis parce que artiste ci boppam bu amul esprit dépassé na artiste warul def leneen mhm. day war a tëju bu génn jotee mu génn def show non non non non comprendre ñu ngi boole seen métier ak leneen ak business mais bu fekkee ne yow comprendre oo succès bi sonal na la da ngay foog ne waratoo jël tax taxi waratoo génn man damay doxe ba ba ba fu ma neex dox sama soxla man sama oto ma indi barki Cheikhul Khadim sama oto sama doom yi lay yóbbu ñu jàngi man ma jël yàngee yi xaaruma loolu parce que début début la début bi amoon naa amour bi xam nga succès bi man dama ko dund ci mu jeex su ma leen ko waxee du nga ko gëm 2011 laa génn télé nit ñi commencé sama téléphone bi allo a bëgg tak tak tak tak mais affaire yi metti sama bopp bi ma ne mais lii lan la. parce que ma génn ci nag. ba tey jii may wax ak yow xam naa ne Sénégal ma mais aw ma problème suñ toogee léegi sama téléphone du la déranger man kenn woowu ma woo comprendre nga parce que man aw problème mu succès. yenn wu ma ko sama yoon siiw man tey nii ma génnee ci tele bi suba bu ma xëyee mën naa yeewu bàyyi bàyyi bu kupp yàqalu ma dara mais am na ñoo xam ne tey ku leen dàq ñu feebar bay mënuñu dox mënuñu dem fenn kon ñi nga xam ne ñoo bëgg artistes jot na dë cent mille yi ngay yónnee Western Union cent mille yi ngay may artiste bi mel fi nga nekk ci Europe wala Amérique nga ne man kat dama bëgg artiste diw xaama jëndal ko guitare xaama jëndal ko benn affaire a jëndal ko mu dajale. xaaral ma fayal ko mu dem jàngiwaat musique. parce que musique dañu koy jàng. dama koy sas am na loo jàng. loolu. jàng musique am na ñoo xam ne jàngi tama. am na école <laughs> tam <laughs> na. ñoo xam ne tey bu ma leen ko sasee. waaw. ma leen ko sasee. Mm-hmm. Mm-hmm. am naa yàqin ne. wala acim su ma jógee fii léegi ñu defal ku si mel ne Mouhamad Gueye muy sëriñ bi nga xam ne wala acim ko ñaanal ba pare yëkkati xaaj jox la muy lu raar barki sëriñ Tuubaa Mbàkke mooy bàyyi Mouhamad yi ñaari yoon dafa jur doom tudd ak Mouhamad juraat doom Mouhamad kon kooku kenn gënu koo baax ak Baye Assane Mara sama xarit moom itam loolu lu ma neex rek mu nga sax ak ki nga xam ne muy Cheikh Ibra taalibe Cheikh Abdoul Karim bi nga xam ne bu màggal jotee gileem yi kenn mënu ko si. Mhm. ay conteneur gileem la jële Dakar di ko di ko yóbbu Touba. Mhm. muy Cheikh Ibra borom PDG. moom kenn du moom si mu réew. Mhm. dinaa la jox numéro te i waaw dëgg du neex. dana am <laughs> dana am def maman Daba maa ngi lay si woo maman maa ngi lay si woo Eva borom Fatima borom Espoir Eva si moom ma sàccal fii ne ma génnal tout balaa jàmm rek. Mm-hmm. fii maa ngi koy nuyu moom tamit lu mu jaay lu ne baaxut. Mm-hmm. a yére yu rafet lay jaay. Mm-hmm. te yéene ma ko di ma ko jox Awa sama yaay. kooku wala kooku sax asim sax tabaski ñaari xar la ma jox billahi wala asim waaw yow tabaski xar yi lay jox noo koy def man dama jox ay xar rek man dama dee ma may benn may xëlwa non yow kay après yow xam nga def non man yow ñooy ànd yow fu ma dugg dinaa la woo ñu ànd non man dama mën a dem ndax man xam nga ma yaa ma gën xam aw ma jot dama yor doom ji nàmp <laughs> sama seex yaa nga may xaati dañuy nàmp ay ca Omar gisee tey sa premier jour ci plateau bi loolu tàmm la kontaan neex na ak sant mhm. parce que nit moom li ñuy wax naan benn du yëngatu. la te ki la ne kaay ma defaral la. Mhm. kooku yow mënoo ko fay. dëgg la a demee la moo tax yow dañu sant rek. Mhm. ma fàttali ko bu baax a baax a baax. premier jour bi ñu njëkk a gisante yow yaa ma woo ni ma kaay. dëgg ba ñu pare nga ñëw nga jël ma bàyyi nga ne ma ñëwal le fril bul bul bul bul ma ne la mhm. su ma jumul vidéo boobu bokk na ci samay vidéo yi gën a cartonné sur YouTube et que tous les commentaires étaient positifs macha allah ci sa côté ak ci suma côté macha allah bi bi ma toog xam ni war na quoi jot na mm, ma xaw a démarqué wu bi ma la wooyee wax dëgg waxtaanuñu cinq minutes bu ko mat ci biir koor gi laa la woo nangul ma bañ a nangu ma woo suma yaay ci saasi waxoo ko mu ñaanal ma ñaanal yàlla jàmm kon maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi seedeel sénégalais yi bu baax bu yaatu mhm. bu xol bi rafet ku ñu ko digal wala ku jubal si ndeysaan merci di nuyu bu baax a baax nag waa ñaari tali ak Grand Dakar nga bokk waa fii yow da ngay ñëw da nga maa invité fii rek ma bokk si waaye da ngaa ñëw à domicile bon ndax fii su ma ñoom nag kon nañ ci jàpp parce que waa Dakar ndak Grand Dakar. fii suñu fii noonu kon nag ñoom nañ ci jàpp. su ma mama Xayta Seck itamit taalibe Alaaji Baara. Mhm. grande voyante borom léegi léegi. macha allah allah dama ko woo démb parce que muy sonal ndax mhm. suma yaay la. macha allah dama ko woo rek ma ni ko suma yaay Amina Poté mu ne ma ñëw liggéey ak moom. macha allah mu ne ban la ma ne ko dix heures. mu yónnee ma xaalis mu ne nga jënd yére waaye ndeysaan ne jàppale leen ko waaye xale la euh, jàppale bi mooy yàlla yor na lépp mais bëgg mhm. su ngeen ko bëggee lépp ñëw kuy génn télévision ku ko bëgg rek la soxla bëgg leen ko te man xam naa ne mën na dara ah, ndax ki nga xam ne daf la woone la la amee man dama bëggoon xam nga métier mi laa bëgg nangam man tamit ma ne ko man moomuma télévision mais am naa pour may nit ku ma neex visibilité mhm. ndax xam naa waa ma ne ko mais souvent nga jàppale nit un mois mu yëg si commencé naan dañ lay exploité dañ lay nax dañ lay lii dañ lay nangam yàqal la doon jaar amaana tey télé Youssou Ndour nga génne mais waa CNN da ngay yeewu rek dew ngay wax mu yóbbu la foo xamante ne nii kawe na foogoo woon sax di nga fa yegg ba tax na bu leen nekk ci xelu xale bi di ko turmante man awma problème ndax su ma invité nit plateau bi toj bu ma liggéeyee man dong mu toj bu ma set toj man tànki neen sax animé naa ko xam ngeen kon man laa ciy jàpp ñi may àndal est-ce tax nga ñu dàq ma école déedéet xam nga ma ko un damaa dem jàngi ndax Rismon Diis waaw waaw waaw ma ko Rismon Diis waaw waaw mu ne ma soor <laughs> yow bu ma àndee yow war na ah, man daal li ma lay digal mooy bëgg ko rek mhm. ndax mbir moom boo ko bëggee muy dëgg ci yow da koy gëm te boo ko gëmee mu la cee jële man sama yéene lay demee tey bu ma nekkoon million la ma am loo xamante ne nii doy na ma damay xaaj sama liñ may jox di la ko jox génne télé may la visibilité yaakaar naa mu yëkkati alala may la ko tëw la comme saret di la bokk da lay yóbbaale kon ni ci kanam rawuli bët mm-hmm. courage nga nekk ci te xam ne bu dee fi la sa yoon ne ak sa wërsëg yàlla mën na koo indi bu ah. bul déglu kenn ku lay tardeel léegi est sa numéro téléphone parce que artistes yi may bind mën naa jox numéro en direct pour ñi nga war di invité ci plateau bi. Hmm. artistes yi tamit mën na euh, am bunt buñ jaar. Hmm. parce que artistes yëpp bëgg man ma invité leen. Hmm. que yàlla mooy def loolu ci ay nit la. ndax nit ki booy def dara ak xol bu rafet suñ borom mën na def koo laal mu tàkk mhm. artiste yi nag dañ jël poté ku nga dem mhm. mais ñoom mënuñu jot ci man parce que man tamit mënuma génn ci télé bi ba pare defal samay doom di wuyu téléphone ba bët set du ma ko def. <laughs> jënd sax du la ko may. est sa numéro mën naa koo joxe pour ñu bëgg invitation ci plateau bi. problème ay ca ñu bàyyi Omar yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen rêvé ma invité leen euh, ci sama plateau yéen ne gëm ngeen ni ku ma teg loxo nga suñ borom def ci ngëneel euh, ma bàyyi leen ak mu joxe numéro téléphone am moom tamit mu wax leen heure yi ngeen koy woo ndax moom am na gel bëggul ko ko yàqal ay <laughs> ay Omar joxeel sa numéro téléphone pour ñi nga bëgg di invité. ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci réew mi. di mhm. dund yenn métier ci comme ni ñu ko doon waxee sànq. ku ci toog rek am loo xamante ne bëgg nga ko génne ci sa bopp wala bëgg nga ko leeral. Mhm. parce que ñu mhm. dundin bi métti na. mën nga ñëw woo ci 78. 127 31 35. 78 127 31 35. walla bu ñu woowee dinañu jot bu ñu jotee ñu waxtaan. ak ñoom jéem leen a gindi jéem a waxtaan ak ñoom jéem li nga xamante ne ni moom moo nekk ci parce que léegi nit ñi ñàkk ku ñu waxal la tax ñuy deflewu ci internet mm-hmm. man nag man sama digg à chaque fois internet du pour jaay du pour weeraate parce que bi muy dool nee naa la boo rombatee ba gis lu bon yow lii laa soxla woon foo rombati lu ma ko man ma taaral ko ba ñëpp bëgg ko lii man man maa la ko dénk ay ca ñatt Biba moom itamit euh, mu def ambiance tàggatoo euh, di remercier nag ab xam ne c'est mon frère talibé euh, Cheikh Ahmadoul Kra Mbacké bi moom Ahmadou rek la bëgg rek la gëm Abakra ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak Serigne Saliou mi nga xamante ne ni moo jàppoon ci son bi ba ngeen mën ñoo dégg sama ñaari rakk yi Aline ak Aline ak Malick Mbay Aline ak Mbay kontaan lool ci ñoom merci beaucoup Alaaji Malick moom mi nga xamante ne saa yu ci jàppee day gën a baax ndax mi ngi mel nu ne boo waxee mu ne ma sañ sa moom sa yëf la dinaa dinaa leen solal benn sërëg ti cheikh ay caraxu six cent il faut que ma defal leen loolu ba ngeen xam ne <laughs> siikarum bi deretu saalum saalum dafa doy waar mhm. boo seetloo fii artistes yi fi Saalum Saalum a nekk ci seen gannaaw di leen tal mbatal. te Saalum Saalum voix bi moo naturel. Oh, ñun soo ko déggee tag da ngay xam ne fii fii la bokk ay ay ay ngene ay ngene rek la wax ay ngene dama ni ñun danoo neex. Saalum Saalum moo lemee ay xale bi bibaa di ko wax na ko ñun kontaan nañ ci yow te ñu tamit invité woon te xam naa ni danañ la invité waat ndax temps bu gàtt parce man soo ma neexee dama lay indi ñaari yoon <laughs> léegi ama dinaa bàyyi ñoom ak Omar ñu waxtaan ñu xoolaat beneen jour pour defal ko beneen émission bi léegi danga may bàkkal sama benn xarit boo xam ne sama xarit bu bees la góoru góoru jëy ak Anta ak euh, góoru joor Anta ak kan damay fàtte sama bopp bi new fi kooku mi ngi tudd Cheikh Burgos borom Espagne dama bëgg nga waxal ma ko lu rëy bàkkal ma Cheikh Burgos ji teel a réer góoru poté demal lii la bëgg waaye bala ma ñëw foofu Amina mhm. Amina dama gërëm suma waa staff mhm. ak sama waa groupe fan mhm. ndax tamit euh, ñu ne ñu koy wax suuf bu sot bu dañ koo jàll sama waa staff may jàppale di ma dooleel ku si mel ni présidente bi Awa Diop sama yaay ak borom Gambia ak Cheikh Dieng ah Lamine Lamine ak wax dëgg yàlla maa leen gërëm di gërëm kenn si koo xam ne euh, sëriñ bu ma bëgg la. muy El Hadj Malick. mu dëkk Parcelles Unité 15. doguma la baal ma rek doguma la euh, maa ngi jéggalu waaye encore merci beaucoup. Euh, parce que temps yi gis ngeen ma ma doon jël volume euh, ci benn euh, benn prise de poids bu ma leen doon defal publicité ñu jox ma ko même pas un mois affaire woon di ma ubbi di réyal sama kanam gi bu ngeen xoolee sama émission yi yu mujj yi rek di ngeen gis ni ma doon mais baax gu ñu baax a tax ñu woowaat ma ne ma c'est bon arrêté ko continué waat sa traitement pour mën a jeexaat en tout cas mention spéciale teew bu rafet bi ngeen di laaj Amina teewam bi dafa tàkk c'est naturel gis ngeen sama loxo ni mu mel di mm. macha allah dem leen ngeen woote Chine Day pour mën a am seen ay euh, produit prise de poids yoo amul benn effet secondaire ak loo xamante ne day dindi seen biir yu forme dem leen foofu foo ko am parce que ñoom defe naa cinq ans mi ngi nii ma ànd ak ñoom ma dara lu ma metti te man xam ngeen ma su ma fa gisee lu jaaduwul nii ma leen di mayee buzz laay ay wax leen leneen man damay ci lii rek laay dox nay jaar yoon laay dox ah moo tax seen numéro téléphone 60 yéen ñi bëgg ay cheveux ay karaw yu guddu mu dem leen fa seen produit yi baax na lu ñu càmbar la xool ko essayer ko jox ko nit ci résultat ñu soog koo jox euh, àddina bi ba pare seen produit yi c'est partout dans le monde la ñu koy jëndee euh, Sénégal nee naa leen coow li moo bari mais tis yi ngeen di gis Sénégal yépp ñu changé fiin rafet waa Paléo la dem leen fa ngeen defar seeni yaram ku ci nekk problème boo am woote fa bu dee mënuñu ko dañ naan ko ñu ngi koy gëstu pour indi ko ci réew mi seen numéro téléphone c'est 75 524 45 45 beneen numéro bi nag man xaw ma ko mais woote leen ci 75 524 45 45 ku xam poté xamoon ko ak ay taasu kanam ay ku amoon ay bën bën turu xam nga sama kanam gi maak maak tonton Ousmane soo xawoon na nu roole xam naa loolu toj picc moo koy joxe bi baa yow naa la fa yebal moom nga am. dëgg la da fay dem. kooku bu ñu jógee fii dana fa dem léegi tout non man sama kanam gi dafa meloon. parce que dama daan toj sama picc yi toj sama picc yi mel na kuy tux mais léegi. la kanam gu raffiné la lay jox kanamu xale bu tuuti ku ma xool xam ne mère ba dem ba dikk. <laughs> waaye da ngay ne seen numéro téléphone. 75 524 45 47 surtout yéen jigéen ñi góor ñi tamit dem leen fa parce que li ñuy jaay pour góor ñi man ma ko wax ci télé. yéen góor ñi dem leen China lay di indi produit indien xaw na waar daal man nee naa chinois bi dinañu rey góor ñi yéen góor ñi am problème dem leen fa <laughs> bëgguma wax luñ ma dàqee dem yaa ngi okk kii ne ko mu dem fa <laughs> kii daa am problème nee ko demal da nga bëgg sentir sentir bu la jot ay sentir da la ñuy jaay ñoom de ñi ngi toj uyu ma ma oh. ñi daan dem uh, ci ci fee nu mu tudd uh, fi RDV ne nu mu tudd ñi daan dem dunia dajeek ñi daan dem dunia man maa dajeek ay paa yoo xam ne ay xale ñu leen di demal Chine Lady man ma ne waa ñii lan la ñuy jaay ñu ne ma mais poté lii moom ay lampataake door mu daanu <laughs> man man dama tiit. lépp ci télé. dëkk bi ñëpp a ngi fay dem xale yu góor yi ñëpp a nga fay dem. man na xaw ma lu ñuy jaay mënuma koo wax. waaye daal ci mbir ci mbir. loolu bari na fa tàggatool. loolu noonu la loolu noonu la tudd. waa loolu noonu alaaj Malick sama sëriñ bopp si alaaj Malick. Kumba ma ah? maa ngi maa ngi nuyu sama chéri koko Kumba chéri Alaaji Malick yaayu xale yi allah kër ju baax ji foon naa la Kumba ay ca demal Alaaji Malick bu baax mi nga xam ne euh, korite dafa dafa indi jasneer bu rafet jox ma ko ne ma chaque événement incha allah ma la muy moom itam muy sëriñ bu baax man sëriñ yi ñëw ma xaw ma lan la barki sëriñ Tuubaa maa ko bu baax a baax a baax nit ku baax la nit ku yàlla baaxal Tuubaa ak sëriñ Lo maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax mbokkum ndayu Pape Fall politicien ko nuyu moom itamit borom xaalis bu bari bi si man ziyaara naa ko baax suñu Xaadim Mbàkke borom borom xale mag yaa ngi dégg nag suñu Xaadim bu émission àdduna waaw si xale mag <laughs> xam naa jërëjëf bi kontaan ma mhm. Aïcha euh, chez ki nga may woyal euh, Burgos góoru góoru Joor Gueye ak Anta ak Kiné Gueye numéro téléphone bi balaa boobu rek sànq ba tey yow. 77. waaw 318 64 52 c'est la. ayca 77 318 64 52. ki daa nga bëgg a wax ngi lay nuyu sama. waaw benn bàjjen bu bëgg. maa xam koy wax aji mbenn. waaw moom heure bu mu ñëwee sa plateau. daf may woo téléphone. ni ma bégal ba Amina dama ko bëgg trop. mu ngi dëkk Liberté 6. Mm-hmm. waaw xam naa après dinaa jël sa numéro jox ko ko. Mm-hmm. di nuyu sama yaay di nuyu papa. di nuyu sama soxna. papa Ndiaga Banda. di nuyu tamit sama sëriñ sëñ Abdourazaq Sougou. kooku sëñ Maama Sougou mooy baayam sëñ Jiiri waa daan mooy maamam. kookoy maamu maamu maam Sougou. sama xarit di nuyu Cheikh Adama Niang maa la ko wax. ay gépp nuyu waa. c'est ayca euh, Cheikh Bourgos euh, borom euh, ndayu Cheikh Gueye Cheikh Bourgos doomu ndayu Cheikh Gueye góoru joor kinne du fekke fun may neewale ah, duma xew la yaa say jiitu man kuy saaga moomi baale ya baaso moomi baale fekke fun boole suma xew la yaa fay jiitu kuy doon kuy yaagaay moomi baale moomi asuha moomi baale dokke kun may ne wala lu ma xew la yaa say jiitu kuy doora man kuy saaga sekki gi ñoora fonk naa la laaw bayo naa la wax leen yéen seex yi neex na waay ci kenn bañu ko. ana ñu ko bëgg yow ñëw